sëñ Muntaxa Mbakke ñëw nag wax naa ko ko léegi ci kër gi ni ko nga indaale mbég mi nag mooy ubbi jumaa ji ndax sa baay Mouhamadul Bachir li sunu warugar nag ñun fii ñu def jumaa ji tey magu lébu xamoon xamoon nañu baatin bi ndax fii lañu daan jullee iit waaye sëñ nag moo ko feeñal te jëmmal ko wax naa sëriñ bi léegi ni ko ñu ngi lay ñaan nga ñaan sa borom ba yomal xiyaam sunu borom def boole fii ci pays yi muy ràmmoo lii sunu warugar nag mooy sant yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ndax jumaa ji kenn dootu ko déq te fu mu nekk Ndakaaru kon lébu yëpp dajale nañ sama tur lu mat juróom fukki kilifa tey ñoo demoon seeti Serigne Sidi eh, ñoo demoon seeti Serigne taxa xamal ko ni ko ngan gi ñun la war kon ñun kat indi na nañu sunu addiya ji nga xam ne lan lay berndeele ñuy sant bu baax njabootu sëñ Touba sant bu baax murit yi nga xam ne ñoo féete ndakaaru ndax faral naay wax ni sëriñ bi léegi ni ko murit yi li nga leen digal ñu ngi ci ñu ngi ci taalibe jàng xasida jàng alxuraan ak liggéey fii ci ndakaaru yàquñu fi defuñu fi lu jaaduwul kon Mbàkke loolu ci yow lañu ko ndax jikko ju rafet ma daal nag wax lenn ci réew mi nanu ñaan jàmm ci réew mi ndax tey ku xool jumaa ji xam ni symbole solidarité national la ndax kenn ku ci ne ñii ñaar dërëm ñii ñetti dërëm ñii juróomi dërëm ñii fukki dërëm ba jumaa ji agsi ki ci def milliard ak ki ci def duubal ñoo yam ca yàlla ndax amaana bu du ñaar yooyu mu ca def kon duñu ko ubbi tey kon ñu ngi sant képp koo xam ne jullit nga te mës cee dugal ci loo yëg ak loo yëgul ñu ngi sant ñëpp di ñaanit bés bii di suba na ko ñëpp def ci ay teggin ak yar ak taalibe bañ a xatal kenn bañ a xuloo saagante bañ xeex te daal teral sëriñ bi mu ñëw julleeg ñun ajjuma dellu ci tuuba ñaanal ñu jàmm ci réew mi waxaat ni kilifa diine yi nanu leen di wormaal ndax ñooy kenn yi nga xam ne ñoo dëgëral réew mi saaga waru leen saagante waru leen xaste ci seen biir waru leen ndax koo xam ne da ngaa war a dañ laa war a roy nga yor war a yor jikkoy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu bon waru la lu ñaaw waru la lu defuwul waru la xuloo bi nag ci réew mi nan ko dakkal ndax amul njariñ lu bon kenn du ko tontoo lu bon lu baaxul kenn du ko tontoo lu baaxul kon nit ñi nañu mënalante te jàppalante te dimbalante te suturalante lii daal moo doon waxtaan wi di gërëm bu baax jëwriñ mbàkk yu fay mi nga xam ni moom la sëriñ bi namoon ay loxoom yor barkeb liggéey bi tey ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla yàlla na gudd fan yàlla nañu muurloo jumaa ji ndakaaru yàlla na ñu jik yàlla na fi jàmm sax ak tedd nga ba képp koo xam ne jóge nga am nga fa nga jóge yàlla na nga fàtte fa nga jóge ndax ndakaaru yàlla na fi sax dàkk yal na ñu yàlla dolli jàmm yal na yàlla dolli ak déggoo yal na yàlla dolli sutura ci réew mi yal na ñu yàlla defal sutura àdduna ak àllaaxira asalaamaaleykum wa rahmatullah